Bellingham Bellingham non Bellingham daal jaaxal na ma man vraiment gannaaw loolu di leen wax asalaamaaleykum les gars di leen daal jàmm seen page bi MLK info di la wax yow mu abonné kun nga abonné di like di partage dana bokk si li dooleel page bi. gannaaw loolu ñoo gën si match bi nga xam ni kat moo doxoon si diggante Real Madrid ak équipe yi nga xam ni kat mooy Girona mën na ne kat démb équipe bi di Real Madrid kat kaat la door équipe bi nga xam ni kat mooy Girona ba tey gone gi nga xam ni kat mooy Bellingham dugal si su luy tolloog ñaari bit si boobule match Bellingham. mën na nekkat kii di Bellingham kat lu taxoon Real Madrid jënd ko kat rëcc wu ko benn yoon ba Real Madrid nag man ko jëndee woon si équipe bi nga xam ne kat mooy Borussia Dortmund si luy toll ak cent trois millions mën na nekkat kii di Bellingham kat li ko Real Madrid jëndoon kat na nga koy tàmbalee fay ndànk-ndànk. mën na ne kii di Bellingham kat lu ko Real Madrid jëndee woon kat jar na lu ko ëpp ndax kat ma ngi fay doxal comme ni ko waa Real Madrid daal di bëggee ba tey mën na ne kii di Bellingham kat boobale match dafa am li nga xam ni kat mooy ab gaañu gaañu sa boobale match ba ñu ngi ragal ne yàlla bu gaañu gaañu bi nekk li nga xam ni kat lu garaaw ndax prochain match yi ñoom mu mën see bokk. buñ xoolee kii di Bellingham kat mën na dugal na si luy tolloog 16 bit kat si li nga xam ni kat mooy saison bi ba tey gars yi di leen wax yéen ñu abonné goon ngeen abonné di leen jox dig daje ba si beneen vidéo jàmm si yéen jàmm si